man Souleymane Bachir Diagne laa tudd euh, professeur philosophie la jàngale naa fii philosophie euh, euh, ci université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant vingt ans léegi ci retraité wu université Cheikh Anta Diop yi bokk maa ngi continuer di jàngale université Columbia ca ca ca New York ba pare at yii di ñëw. damay jàngale et à Columbia University ak école normale supérieure bi lee nga xam ni bokk nañ ci consortium bi. waaw dañu daje nekk ñeenti université mooy école normale supérieure bu Rue d'Ulm boo xam ne bi ñëpp xam nañ ko ci France mu bokk ci benn consortium moom ci boppam. mook université mook PSL mook collège de France mook école de hautes études en sciences sociales et muy benn pôle ñaareelu pôle Euh, ci Afrique du Sud boo xam ne bi suñu xarit bu ànd ak ñun ci projet bi le muy Achille Mbembe fa jàngale beneen pôle bi di euh, campus AFD AFD mooy agence française de développement euh, ci côté bi nga xamee ne bi côté boobu daf ko jëmale ci njàngale muy campus AFD bi ñu commencé xalaat projet wu cours bi ma ne loolu faw Sénégal bokk ci université wu Sénégal bu mel na université Iba ci am de Thiès bokk ci ndax euh, donte université la bu jeune université la boo xam ne bi wane na ñi nga xam ne mooy excellence université wu Sénégal yëpp te mën na nekk pôle boo xam ne bi euh, dina fédérer ay énergie yu jóge ci yeneen université wu Sénégal yi itam donc yi université ñoo àndandoo defar cours bi donc cours bi le ku nekk da ngay da nga ciy joxe njàngale bi nga xam ne bi yaakaar nga ne dina leeral li ñu tuddee nouvelle compréhension du monde naka la ñuy déggee àdduna bi ñu nekk léegi ndax àdduna bi dafa soppiku ni ñu koy xalaatee wala ni ñu koy gisee itam dañ ko war a soppali ku ci nekk ne mankat maa ngi jàngale nangam boo xam ne bi dinañu euh, dimbale ci ñu dégg wax jooju mooy lan ñu dégg lan mooy euh, monde bu bees bi ñu dëkk ak euh, ni ñuy xalaatee ci monde boobu université bu mel na Iba Der université Iba Der Thiam Thiès ne ci wàllum santé ci wàllu maladie yu bees yi nga xam ni mondialisation moo leen indi ko virus corona bi euh, mooy benn la ci yooyu am naa ci njàngale boo xam ne bi dina leeral lii ñu tuddee euh, manière yu bees ñuy déggee àdduna bi ci wàllu environnement itam samay chercheur ak samay enseignant ñi ngi joxe cours yoo xam ni dana leeral loolu ENS euh, e zalika naka noonu nga am naa yii enseignement ñu boole yooyu enseignement muy ay enseignement ci université wu noor yi ak université wu sud yi ñu bokk ko jàngal euh, suñuy étudiants ak itam en dehors de nos étudiants ak ku bëgg rek inscrire ci cours bi ne ñu yaatalee ko noonu léegi université bu nekk nag léegi yaay tànn ne cours bi sama étudiant bu ko jël jox naa la crédit sangam mu jëm ci diplôme sangam dañu ko bëgg a yaatal ba nga xam ne bi dina nekk master boo xam ne bi université bu ci nekk mën nga ne sa étudiants yi dañuy inscrire ci loolu suñu ko àggalee njàngale boobu ab master ci euh, ci ci boobu euh,